nit day yéene li mu yéene boppam mu yéene ko moromam. Cheikh mm-hmm. Fall dañ boo bëggee ne ci kanamu gaa yi. Mm-hmm. da ngay raw gaa yi taxaw liggéey. Mm-hmm. ëpp doole doo noggutoo. xam sikki yi maandu ci. bari njëriñ gi njëriñ te doo ko pukkari woo. ku tële nga yóbbu ko. doo jëw ku yàlla bind ku la jëw nga baal ko. doo yàqale ku yàlla bind ku yàq tal nga muñ ko. ku yàlla bind nga yéene ko jàmm ji nga yéene so ki la jox junni ki gott laaj junni ñoom nga yemale sa xol. waxi maam Cheikh